d'accord euh, euh, honorable aujourd'hui am na lu ñu xamante ne dañ ko remarqué muy euh, euh, désamour bi am ci diggante nguur gi fi nekk ak ñun taskatu xibaar yi donc noo ko jàngatee balaa ñu ñëw ci détail. da ngeen di door jot seen wàll. yéen ñu ko tey déedéet yéen ñi yéen leen ko ñun ñoo leen amnistie fiscale mu ñëw ne du ci dal hmm. ñun kat bi ñu amee et toujours di hmm. man taskatu xibaar mu juum mu ñàkk juum saa yuñ ko tereew tas xibaaram rek ñu ngi enfreindre dafay gàkkal démocratie heure bu ñu coupé internet la ma xoon démb lay wax tey quoi que ce qui se passe de l'internet du dëgg du yoon waaye saa yuñ ko coupé daa am lu muy gàkkal ci liberté d'expression consort déggu li mu la am na ci yoo xam ni am na ci yoo xam ne c'est c'est inopérant même fekkee am na fu ñu ko teg li doon xew ci TikTok bi li doon xew ci réew mi bi ñuy taal par moment c'est des mesures conservatoires waaye dama ni gënul dama ni gënul li xew ak yéen nag dañoo pare ak soldats yi policiers yi lañ njëkk a jox seen toroxal ñii toog tey amul lu ñu leen yàqul mhm. biñ paree ñu jël ci magistrat yi ah. biñ paree ci magistrat yi quatrième pouvoir mooy la presse ñu ñëw singili leen singili bi mooy dañu jëm ñëpp def leen ci même sac di bëgg a habiller Paul mhm. déshabiller Paul pour pour pour solol gens mais dégg nañ presse bi mu génnee wax parce que c'est des sachants c'est des démocrates faraluma leen ah y a beaucoup de manquements dans la presse jàpp naa ne ni ñuy séddalee même aide à la presse war nañ ko gën a xoolaat gën ko encadrer ndax est-ce que àgg na ci ba ci reporter bi li ñu wax ba ñu fay ba ñuy fay moom moom laay wax nañ ko gën a encadrer parce que aide à la presse la pas au patron de presse pour kër kër gi nga nekk bu luñ ko joxee mu am njeexital ci nekkin wi ak ña fay liggéey. jàpp ma ni fépp noonu la c'est vrai que ba pare presque bi aussi moom moo njëkk a boppam mm-hmm. ñett ñoo gis def nañu groupe il mm-hmm. y a pas d'unité dans la presse je suis journaliste communicant je connais bien le métier j'y suis donc il faudrait ñu def groupe mm-hmm. ba pare singli bi ñu teg ko ci suuf ministre bi bu jaroon kilo tey matul libre benn il a été trop léger ci argument yi mu jël pour def ses analyses beneen bi ma ci approche bi on doit être à l'ère de l'approche inclusive dégguma kenn ci presse bi ne du fay l'impôt gi dégguma ko dégguma benn patron benn fay te moonte bi ñu ñëwee rupture de contrat unilatérale gis nañ ko ak la presse fu waaye amoon contrat dagg nañ ko te dafa am yoon bu ñu war a rompre un contrat voilà ba pare li ñu leen waroon fay fay nañ leen fay man soo ma su fekkee dama la yoreel nga yoreel ma ma lay laaj li ma la yoreel damay fexe nga jot la nga am ba pare après man la fayal ba pare aider la presse à mieux se sentir c'est aider le régime parce que presse xam nga li muy def day alerter donte par bu li mu lay génneel ci ay ñaawteef ça te permet nga defaraat sa nga jubbantiwaat li xew li xew li xew ONAS su ko presse waxuloon kenn du ko xam et jàpp naa ni bokk na ci li tax yow mi autorité ngay jugé nga mën a am temps d'anticipation sur les questions donc mieux la presse se porte jàpp naa ni mieux ça va pour la démocratie donc sur ces questions là je demande ñu ubbi waxtaan ak les hommes de presse gis nga am allié ak presse moo gën am presse comme noonu ko ndax la presse c'est un pouvoir bu kenn war a war a sàggane d'accord euh, honorable balaa may jox euh, euh maman ak Seynabou yaakaaroo di euh, waxuma sa casquette député mais l'homme politique que vous êtes euh, vous n'avez pas une part de responsabilité ci li xew ci li xew ci dans la presse ci naka mooy ci euh, une certaine presse on va dire parce parce que am na ñu naan singali bi singali bi c'est une certaine presse une certaine presse boo xamante ni nguur gi fi nekkoon dalee na may doole comme une certaine presse bu fi nekk jamono ji am doole lool amuñu woon doole temps Euh, gouvernant bu fi nekk est-ce que vous n'êtes pas fautif dans tout ce qui se passe dans la presse zizanie bi fi am pëccëxoo bi am si suñu biir sax ñun ci suñu diggante création wu euh, ñoo xam ne duñu sax ay journalistes mën a toog ci ay plateau et cetera et cetera est-ce que amul leen ci benn part de responsabilité vous les politiques si parce que les politiques ñoo ko war a organiser ñoo ko war a régenter mais ki ñëkk am part responsabilité mooy yow organe de presse tu préfères dem jëli Seynabou bi formation di ko fay trente quinze mille ñi les organes de presse quatre-vingt-dix pour cent nawloo ña ñuy liggéeyal wala nit ñi waxee li ñuy dund en tant que journaliste sagaleen fitiye c'est pas de bon salaire on ne respecte pas d'abord l'organe de presse ensuite le rôle d'un État c'est de régenter on a laissé trop faire lii xew ci TikTok bi li xew léegi ku sa ñaari caméra consort tu crées on a laissé faire y avait y avait la responsabilité de l'État de régenter quand je dis l'État ban bu mu ci mën ci doon xam nga li may bañ mooy gis nga quand on règle un problème mm-hmm. dafay ñëw mu ngi explosé mu ngi commencé xam nga jamono yu Abdou Diouf mm-hmm. RTS fi newoon bu gën kaa sori Sud FM mm-hmm. wala Fajri loolu fi nekkoon c'est sous le sang le règne de Ablaye Wade que la presse a explosé mm-hmm. après mu ñëw nag ak un phénomène boo xam ne ni c'est un phénomène mondial la presse numérique parce que la presse classique semble na pas trop poser problème on presse numérique bi bi mu ñëwee mu nekk une révolution mondiale bett ñëpp ñun comme les pays développés qui sont ils sont confrontés à ce problème-là maintenant c'est à nous de régenter la presse de l'organiser état la état la buy Macky Sall muy Ablaye Wade muy Diomaye tey tu es il est responsable de ça conso non tous les hommes c'est qui les hommes politiques lan mooy les hommes politiques. les mooy ñi nekk ci pouvoir bi. waaw am une man damaa leer une certaine presse xam nga tey ji mënoo. non dama ni loolu soo ko defee mooy da ngay am gis-gis bu gàtt. demal réew moo dem ci addina mm. le pouvoir à sa presse. les hommes somme hommes a sa presse. France dafa am déedéet non amul yàq mooy kon da nga xamul nu presse doxee. tu vois en France y a une presse de la droite dañu far politiquement dañ ko assumer c'est pas interdit xam nga lan moo bon toog fii bëgg neutre fekk yaa ngi encaissé ci suuf loolu mooy le problème il faut que les gens assument. parfois li ñuy def xam nga waaw moom laa man man yi su boobaa xam nga loolu ce n'est plus l'état mm. question valeur la man jàpp naa ne fii nga toog liggéey ci lu laa foog ba nit bu ñëwee jox la ci mbedd jox la enveloppe ne la waxal ma lii soo ko rusul da koy saaga parce que il veut acheter ta li xew léegi ci réew mi. téeméeri chroniqueur yoo jël. juróom fukk yi dañoo féete avant ñi ñëw am nañ position waxal lu ñu xam-xam waxal lu ñu pour éclairer dañu wax parce que dañu féete moo xam nga nekkoon ci nguur démb moo xam nga nekk ci nguur tey c'est des positions qu'il faut combattre li baaxul moom baaxul soxna si mais nag foo dem ci àddina demal États-Unis y a une presse qui est proche du pouvoir y a foo dem ci àddina alors que le rôle de la presse c'est d'informer juste et vrai même boo faree même boo faree kenn terewul pour bu mu faree mais boo faree dafa am yoo xam ne ni en technique de journalistique on s'arrête aux faits mais tout le monde sait que les commentaires sont libres nos opinions on peut donner mais ñu bañ a confondre la vérité et nos opinions. loolu loolu ñu gën a yi nga xamante ni dañu nekk ñuy wax ay presse pouvoir presse opposition man je me dis le journaliste. boo demee ba tiim sa journal pour di bind bindal li nga xam ne moom mooy les faits bu boobaa kenn du leb après bu may politique damay summi sama casquette journaliste ma teg dem politique ba sama xol sedd mais bu ma sëggee di bind boo liiree sans papier waroo xam en fait waroo xam ndax man pour pouvoir la bëgg opposition laa malheureusement loolu lañ gisatu sur le terrain instant fii ku si nekk da ngay daal jël di seet li nga xamante moo neex politicien bi comme ça di ko defar mais l'autre problème mooy ñi ngi ko doon wax sànq nii certes euh, gouvernement bi nga xamante ni moom moo fi jógee delloon na daal di def ay euh, ay ay exonération daal di éliminer yenn daal di effacer yenn dette fiscale mais man moom problème mooy euh, est-ce que c'était la meilleure solution ñëpp xam nañ le modèle économique de de la presse c'est pas bien du tout au lieu ñuy daal di dem di dindi ay dette fiscale Sénégal dafa am problème dañu soxla suñu ay dette fiscale nit ñi dañ ko wax di fay au lieu ñuy dem di dindi lool pourquoi il y a un fonds qui est là pourquoi mënuñu jël fonds boobu